gërëm suñu frères yi nga xam ne ñu ngi ci parti bi di ay responsable yu mag muy le docteur Augustin Tine mon frère Thierno Sall le directeur de la poste Siré Dia madame Seynabou Ndiagane docteur Ndiaye Omar Diop parmi tant d'autres l'ensemble des maires qui nous aujourd'hui en fait euh, permis de pouvoir rassembler l'ensemble des jeunes du département pour échanger ak ñoom jégalu donc dajale xale yëpp ci département bi waxtaan ak ñoom ci mbirum parti bi parce que dañuy dem te li nga xam ni mooy war mooy xale yi dañoo war a porter combat parti bi te pour ñu mën ko def ñun ñi nga xam ne ay mag nañ ay mag ñoo ñu doon targat fii bi ñu nekkee élève lañu ñu jàngoonti ñoom ak li ñu dajale ci expérience dañu ko war a delloo pour que ñu mën représenter comme ça ëllëg même bu ñu fi nekkatul li nga xam ni war nañu ñoom ñu def ko euh, porter le flambeau du parti taal bi ñu fi taal ñu entretenir ko. ba Sénégal gën a jëm ci kanam parce que loolu kese moo ñu tax a jóg. waaw maa ngi doon wax sànq ni xajaloo bi euh, xañ na ñi ciy dund ñoo koy entretenir xajaloo amu fi euh, xam nga parti bu nekkee au pouvoir yoon la ko mu am ay ay ay coow parce que ku ne da ngay jóg ñëw et ñun ñi nga xam ne ñu ngi fi woon bi parti bi dooree amuñu benn intérêt di xajamal li nga xam ne boobu léegi ñu ngi koy liggéey lu ne daj nañ ko fu ne dugg nañ ko biir Thiès. dans le département de lu ne daj nañ ko gis ngeen li ñu daj ci campagne ak lépp ba fal Macky Sall loolu ñu liggéey lépp nag du ñu koy yàq ci ay maanaam féewaloo yoo xam ni ay féewaloo yu superficiel la ci tubaab tekkiwul dara responsable yi kenn amu ci problème mosoo dégg diw ak diw waxante lu ñaaw wala dara mais ku ci nekk am nga sa gannaaw et c'est normal que ñi nga xam ni xaj na division boobu moo leen arrangé ñoo fi nekk di ko entretenir mais mat nañ mat goo xam ni di ngeen gis ne lii ñëw en tout cas ci at yi ñëw wala ci weer yi ñëw du ngeen fi déggati xaajaloo du ngeen fi déggati dara parce que li ñu soxal fi mu ne mooy ñu falaat président Macky Sall parce que bala nga ni naam ne fa bu fi Macky Sall nekkul kenn du fi ne. kon euh, kuje gi doon bëgg bëri gi moom moom may wax rek kuje gi bëriwul amul sax amul sax mbër yow xam nga ni fii ak 2017 wala 2019 bu fekkente ne def nañ élection. Euh, nit ñi dafa ñu wax leen ma rek ban candidat boo xam ne mën na fi taxaw tey gañ a ki Sall. Idrissa Seck wala Malick Gakou Karim Wade. waaw yow non Karim Wade bi ne ci kaso bi na rendre compte ba pare ñuy wax taxul ñuy jóg koo xam ni dafa ragal dem campagne élection locale Guédiawaye nan lay mën a gañee Sénégal Idrissa Seck il a dégringolé de 14 en 2017 pour cent vers 7 pour et pour l'histoire politique du Sénégal wax leen ma kenn koo xam ne bilan mus na wàcc ba yëgaat wax leen ma ko rek. musul am vous savez pertinemment que yow euh, la le parti Rewmi en décomposition amuñu sax jotti ne fi di wax Idrissa Seck wala keneen li ñu wóor ba wóor ñu mooy ñu doon wax ni Macky Sall nu bëgg bëre bañ bëre bëgguñu woon sax élection am en 2017. seen adversaire du parti socialiste bi nekk ci seen biir Serigne Mbaye Thiam bi. mais Serigne Mbaye Thiam mesure yi muy jël damay wax fii ni ñu ngi koy jàppale ci loolu bu baax bu ñu bëggee suñu doom yi jàng bu ñu bëggee suñu doom yi am benn niveau njàng mi. il faut que li nga xam ni mooy ñii ñu xam ni moo leen di jàngal ñu targat leen ci rigueur ci compétence te bañ fee nekk ci ay njuuj njaaj parce que su benn su ëllëgee ñëpp a xam ni xale mooy avenir ëllëg su njàngam baaxul bu njàngam oyofee du mën a en fait porte le combat du pays du mën a développer am réew donc li mu def ànd nañ ci ñi ngi koy jàppale bu baax a baax il a notre parce que njàngale mi boo bëggee mu baax dañ nga ci boole fulla ak fayda ak rigueur loolu la def donc ñu ngi koy jàppale jàpp kontaan nañ ci bu mm-hmm. yow xam nga ni euh, mbënn mi kenn waxatu ko nañ waxan ci dëgg bu hivernage mu saana nekk toog dakaar kenn du am jàmm kenn du euh, ñëppay tiit fii def président Macky Sall woote en 2009 génne fi plus de 13 milliards ñu def ci ay caniveau def évacuation. donc euh, des eaux pluviales à Dakar ñi nga xam dañu nekkoon ci ay zone non aedificandi yëpp ñu toxal leen te joxuñ leen ay logement yoo xam dañ ko jaay après am nañu ko fi defoon xam nañ xam nañ xam nañ jaxaay ni demee dañ ko euh, jël ci ay turu nit ba pare jaayaat ko ñëpp ñi nga xam ni dañ leen a war a affecté xam naa ci dara parce que armée moo leen doon transporté ku ci ne jox nañ la kër ba compte nag ci benn lay commencé li ñu def Dakar nañ ko def feneen ça c'est sûr certain parce que Sénégal am na suuf xaj na il faut des moyens pour ça nous avons commencé par par Dakar parce que moo gënoon prioritaire mais bu ñu paree ci Dakar dañu jublu ci yeneen yi mais mënuñoo defandoo lépp en même temps c'est